yee du benn yoon du ñaar yoon ah loolu moom euh, mën naa ni dafa bokk ci <laughs> dafa bokk ci man léegi maa ngi koy bàyyi maa ngi léegi maa ngi mais def na mës naa fouillé sama téléphone ay gel mais avant may marié <laughs> ay <laughs> yi mën nga ko wax yi mënoo ko wax quoi mais boobu mooy taa yi may të mais léegi quand même euh, dama hmm, mës nga nëbal.

non du xaalisu rek ak xaalisu paiement école ak xaalisu <laughs> mës naa lekk xaalisu fourniture xaalisu paiement école ah xaalisu inscription yooyu yëpp lekk naa ko te xaw ma ba mais loolu bi mu reesee yàgg na <laughs> ah, eh, kii dem ci Colobane euh, wala marché Thiaro jënd ci ay yëre parce que ma yàgg bëgg ay yëre euh, maa ngi fàttaliku benn bi dama ci jëndoon ensemble jean Lewis boobu temps yooyu temps Lewis Strauss la ma jënd ci ensemble jean euh, maa ngi doon def je pense cinquième secondaire xaw ma quatrième yàgg <laughs> mës ngaa jël ndaare sa classe. ndaare non non non mm, bi may nekk école nak taxul woon ma bëgg noonu jàng mais eh, ak eh, en classe dama xawoon perti bon euh, j'étais pertinent quoi Euh, bon j'étais un bon élève mais même bu après bëgguma ko mais euh, intelligence bi moom mu ngi fi woon bañ doon am ay notes yu baax quoi. mës am rupture ba pare di jooy rupture non ñu tak sama gel mës nañu tak sama gel moy waxuma la ñaari fan une semaine boy moy sama premier amour hein, je pense ñu tak sama gel ko xamni ne fété ndo 31 décembre le 1er janvier lañ ko waroon tak kenn waxuma ko 31 décembre 5 h du matin ñu gunge ko mu dem seen kër 1er janvier ma mariage am la gaay yi di ma ko wax ma melni kuy rêvé et puis 5 jours yoo xam ni saa euh, lekuma nanuma naanuma c'était compliqué eh oui. mës naa for xaalis. mës naa for xaalis waaw mës naa for xaalis ñu wax ma kan moko mom ma def semblant ba xaliss jeex. Ah, après la ma gars yi woo après sama yaay fay quoi. ndax mës nga fàq baal yi. waaye fàq baal yi je pense que moo gën a tuuti ci fàq yi ma def ah, man fàq naa def yëpp euh, fàq baal yi fàq dem géej euh, fàq suñu kër parce que dañ la dig ay dóor fàq fàq yu bari ah mës naa fàq fàq yu bari. mës nga lekk suuf. je pense que bi may xale bu doon plat préféré mën naa ko wooye suuf na ci bokk quoi lekk naa ko ay yoon yoon quoi euh, mais xale yee lekk suuf baaxul mais man lekk naa suuf. <laughs> mës nañ la tendre par quatre. Euh, tendre par quatre bu doon à péage bi le mani euh, je pense <laughs> man maa yëpp hein. tànn sama yaay tànn na ma par carte sama papa tànn na ma par carte école tànn ma par carte suñu koñ tànn ma par carte grand yi tànn ma par carte kooku sœur ci koñ ba tànn nañ par carte dama tëwoon ay par 4 4 kay ay par 8 tànn par 16 tànn par 32